asalaamualeykum man professeur musa Seydi man maay wax ak yéen tey ñu bëri dañ ma woo dañ ma laaj ci mbiru lunette yi ma wax ci émission boo xam ne maa ngi ko doon def ci benn télévision ak benn rajo lunette yi ñi koy soxla mooy ñi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloog ñi nga xam ne dañoo feebar di saqat walla di tisooli te même su boobaa lunette yi ñu soxla dëgg-dëgg ay lunettes spéciales la lu ñuy wax lunette de protection koku ñepp mënuñ ko am waye si contexte bi ñu nekk nga ne contexte port de masque généralisé la lunettes yi normalement sax suñu topé li ñu digale kenn du ko soxla parce que képp kuy saxar wala di tissoli même so fébaré si masque bi la yem kon du mëna dem si bëtu kenen may profito ci leeral bi nak di wax né comme jangoro bi fay jaar si bëdi di jaar ci bàkkan bi di jaar ci gémmiñ gi su fekkee wóoruñu ne suñ loxo set na nañ moytu jël suñu loxo di ko teg suñuy bët walla suñuy bakkan walla suñuy gémmiñ nañ raxasu toujours ak saabu moo gën lépp suñ ko mënul ñu utiliser solution hydroalcoolique balaa ñuy laal suñu kanam jërë ngeen jëf